léegi dafa ne la am encaissé dépasse yëpp terrain bi moo ko fay sa ñëkku liggéey ñëpp ñu ngi fii si Baobab terrain bi le maire bi ko njëkk a defar daf ko defar un an gazon yàqu bi moo defaraat gazon facture yëpp a ngi fi un après gazon bi yàquwaat riverains man nuyu bu nekk ñu woo ma terrain bal bi def na lii bal bi def na lii ma ne def leen comité bi mag a mag ba nga xam ni ballon bi du génn su ne terrain bi dimbaliwul kenn terrain bi dimbali na ay nit loolu dimbali na génn si mbedd mi doo naan diw mi maa ko dimbali mais traçabilité bi mi ngi fii. œuvre sociale mooy lenn par exemple comme am na fi benn xale bu nekkoon si biir cité bi amoon demande aide cancer la amoon ñu war ko opéré donc booy def bilan loolu dina génn ak traça am na traçabilité demee dinañ dem bu ñu demee si maire avec tous les dina leer wax ji bari na trop mën na ko ko xale aw ma ko lii ma moo am c'est demain dina clair parce que demain ñoom maire recevoir na demee le maire de comité bi incha allah tey yëpp foofu.